auzu billah bismillah inna wala yàlla asalaamaaleykum axlu lamb nuyoo siyaar warmaal seen doom day organe far bu jor moo ñëw indi leen suñu lamb lundi 7 janvier 2019 gros titre nii la demee BG2 Modou Lo jour J moins 6 Balla Gaye 2 légèrement favori à Sandaga dernière face to face entre Balla et Modou la grande balle a chauffé bala Gaye 2 mooy wax rien ne de fêter le 13 janvier j'ai j'étais battu en 21 secondes mooy wax Il aille au Nigeria, au Mali, ça ne m'ébranle pas. Balla Gaye 2 n'est gros titre noonu la demee bu ñu duggee si biir allahu rabi dañuy ñëw si troisième phase comme fenêtre comme suñu lamb nu mu ko defee saa nekk fenêtre ah, ñu ne Alioune Sall ah, Alioune Sall mi nga xam ne moom mooy maire Guédiawaye na su face to face Balla moo di Modou Lo moom Alioune Sall maire maire li nga xam moo di ñu ne Baye Ndiaye ah moom gis nañ na ah, meroon na ci ki nga xam ne moo Laay Buuju ah ba daloon na ci kaw moom ki nga xamante ne moo di oh, ñu ne Tyson ak Yékini ah ñoom ñooy le lion de Guédiawaye ak le roc des Parcelles Assainies Tyson ak Yékini noonu la ko suñu làmb titré ñu ne King Kong ah, King Kong moom waa camp Modou Lo bugguñu ko gis moom King Kong nee persona non grata la moom waa parce waa Modou bugguñu ko gis gis nañ ci vidéo yi àndandoo Modou yaa may ñu ko dara moom mi nga xam ne sécurité fële nga xamante ne moo di face à face bi euh, dîner de amee woon moom noonu la demee ah ñu ne Brise de Mer moom libéré nee ñu ne galaa ah, galaa ah, am na fële ca Mbour le 27 janvier lay am waaw galaa lutte simple fële ah, fële ca Mbour teg fa li nga xam ne mooy mise yu am solo ci mbapat bi waaye gisuñu ko fa moom tegu fa tànkam waaye nee nañ gis nañ organisation bu am solo bi nga xamante ne waa Luc Nicolaï en ko ah, nañu organisation bi ñu amaloon fële nga xam ne mooy mbapat bi amoon fële nga xam ne moo di sa dañuy ñëw ci li nga xam ne moo di quatrième passe ak cinquième passe quatrième passe cinquième passe li ko waral mooy soirée gala bi ah la suñu lamb jël ci quatrième page ak ko image waaw waaw ah. gis ko noonu ah monde lamb yu bëree bëri teew fa ngeen gis Balla Gaye 2 nekk ci tuus ah. nekk noonu ngeen gis Yékini xam nga yëkkati loxo Modou Lo xamante ne moo di Balla ko noonu ah photo yi am na solo solo ah ngeen gis monde lamb yëpp dajoon fële nga xamante ne moo di sa dîner de gala ba loolu yokkute lamb la gars yi dañuy jógee foofu ah dañuy bi waaw ñëw ci sixième bi wax ci lan mbapat ñu ne mbapat xapitur deuxième journée Mamadou Lamine Sané moo ko jël ah kan la daan assurance la daan final moom ki nga xam ne moo di Mamadou Lamine Sané waaw waaw ñu koy wax Doudou Sané noonu la demee ñu ne moom jël na li nga xam ne moo di huit cent quatre-vingt mille ah moom la jël. bàyyi gaal li ci des ñu seddoo ko moom mi nga xam ne moo di Doudou Sané ñu ne Babou Ngoma ah, waaw Babou Ngoma. Ah, Babou Ndour Babou Ndour moom mooy roi léger yi ndax moom moo jël li nga xamante ne moo di léger yi moom Babou Ndour waaw waaw damay ñëw lutte avec frappe waaw wax ci ban combat Albarka Kéré waaw waaw ak kan Boy Bawol 2 waaw ñu ne combat bi ngi waroon am le 12 janvier fële sa stadium Iba Mar Diop ñu ne wàcce nañ ko ba le 10 janvier li ko waral waaw suñu lamb indi na ko lu yaatoo yaatu ci biir journal bi Albarka Kéré ak ki nga moo di la demee ba tey damay des ci lutte avec frappe ñëw ci première journée à la saison waaw sëñ Modou Niang moo woon démb fële sa Diom Iba Mar ah, di Ibou Ndafa numéro 2 ko ci kaw douleur bu méttee métti ndax gis yoon ñaari yoon ñetti yoon soo waaye njaga ko daan ko waaw waaw noonu la ko suñu lamb moo di septième page bi septième page comme li mu la nga waxoon ci titre ah ñu ne dîner de gala au terreau bi samedi passé waaw samedi passé ñu diggante Balla Gaye 2 ak Modou ñu ne dîner de bi ah noonu la demee ñu ne la gis nañ le lion ak roc bi ah ñoom def nañ baal yu am solo yoo xam def nañ fa ay bàkku ay yu neex a neex a neex a waaw nee nañ nag waaye Modou Lo bàyyiwul dara dara mu senn moom Modou Lo bàyyiwul dara mu jàll ci diire rek galaa boobu noonu ndax Modou Lo dafa indi seizième boppam seizième boppam la indaale toog ci waaw wow indaale ay bagage yu misigam def ba mu saf saf moom mi nga xam ne moo di Modou Lo moo tax suñu lamb nee na Modou Lo génne na bagage yu diis yi bagage diis moom Modou Lo génne na si li nga moo nekkoon si dîner de gala bi mooy lancé un appel waaw moom Tyson mooy lancé appel ki nga xamante ne moo di Modou na appel bu fort ñaar ñooñu noonu parce que nee leen ah ñoom kat nañ wane exemple ñoom ñoo fi nekkoon ñoom ak ñoom Tyson ñoom Yékini ñoo fi nekkoon wane exemple ba ñoom ñoom ñoom Modou bëgg ko ñëw dugg si biir li nga xamante moo di làmb idoolu ñi nga xam ne ñooy booy yi war a jóg kon nañu wane exemple bu nice pour booy yi waaw noonu la ko Tyson envoyé message boobu noonu ci nga xam ne moo di a Gaye 2 ak ki nga xam ne moo di Modou Lo dañuy ñëw ci huitième page waaw huitième page ñu ne ah ñu ne gis nañu si diine la galaa bi ah Balla neex yu safa saf waaw waaw ba képp ka nga xamante ni nii nii si furoon nga li nga xamante moo diine galaa bi sa xol sedd la ko suñu lamb tiitee nee na leeral bi waaw pour ku nekk xam fu wànneen di mujjee ak bëtam waaw waaw Balla ah mooy wax Balla Gaye 2 nee dara du ko mën a teree feetu le 13 janvier parce que day daan ki nga xamante ni moo feete ak ay ñooñom moom ki nga xamante ni moo di Balla Gaye la ko waxee waxee nee na ba moom ah moom 21 secondes la daan ki nga xamante ne moo di Modou Lo kon amul lenn lu muy wax ak ki nga xamante ne moo di Modou Lo noonu la ko Balla Gaye 2 waxee Modou Lo mooy wax ah Modou mooy wax Modou Lo nee na Balla Gaye mu dem Nigéria mu dem Mali mu dem Burkina mu dem moom loolu yëngalu ko ah moom lijjantiwul loolu moom ki nga xam ne moo di Modou Lo nee na moom lijjantiwul loolu mais nee na Balla Gaye parewul nee na Balla Gaye parewul non Modou Lo nee na Balla Gaye te moom dina woon àdduna ne Balla Gaye 2 parewul moom Modou xarañ Lo noonu la ko waxee ba tey ah damay def si huitième pas ñëw ci micro sondage comme ni mu la ko wax ci titre yi suñu biir Sandaga la dugg waa ñu ne biir Sandaga nag Balla Gaye 2 lañ jox légère favori moom waa biir Sandaga waaw waa Sandaga ñooy wax waa Sandaga ñooy wax kii nee na Modou Lo ah amul benn risque bu muy jël ci combat bi waaw amul benn risque bu muy jël waaw ki ci topp nee na Balla Gaye ah, mi ngi nax boppam mi ngi nax boppam bu fekkee dafa yaakaar ne Modou Lo bi mu nekk ni mi nax boppam ki ci topp nee na Modou Lo ah nee na Modou Lo amul benn sens ci combat bi Modou Lo amul benn sens ci combat du xeex du bëre lu mu ci def bala Gaye 2 da koy daan noonu la ko waxee ki ci topp ah nee na nee na kenn mënul ñàkk nee na xeex mënul ñàkk ci combat bi nii nii nii nee na mënu see ñàkk foog mu am xeex balaa ñoo bëre noonu lañ ko waxee ñoom waa Sandaga damay ñëw tëjee ko ak jalget laam comme ni ñu ko defee saa su nekk jalget laam tey kan moo fa nekk Modou ah, gi yore ah, ah, waaw di ko sotti ko sotti si biir géej gi noonu Modou Lo mooy wax mu ne su ma Balla daanee dootu dégg daal yi moo tax foog ma bëre bëre bi daan daan bi ah fayu fayu fayu hmm, combat bi sama combat la noonu la ko xarañ loo waxee gars di leen jaafal looloo nekkoon suñu lam waaye loolu ci mënti dégg loolu ci mënti dégg ah daan Pambaay combat la que le meilleur gagne